si Ousmane Sonko la te pexe boobu lu tax ñu koy def man sax dama ciy gis nit ku weex koo xam ne dafa leen a jaral nit ku weex koo xam ne dafa leen a jaral ñuy ko ci alal ju bari jox. mooy dañu fi dañu dañu fi amoon yoon bu ñu fi jàppoon ñëwoon fii ci jamonoy football nga waxoon ñu ci ay wax euh, ci diggante Paris ak ki nga xamante ni moom mooy mooy Real. ma gis ne li fi xew li paase bu fekkee ne defuñu nànk. lu ko rawaat wala lu ko gën a yées dina fi xewaat. maanaam dégguma comme comme jéye jéye yi fi amoon. yi passé maa comme jéye yi passé ba ay nit loro woon ci ay nit ñàkkoon ci seen bakkan ñu ñàkkoon ci seen bakkan ñu leen di ñaanal yàlla yàlla suñu borom yërëleem yërëm leen te xare leen ajana te yàlla seeral suuf seen seeni kaw di wax ne loolu yàlla bu mu fi amati waaye man de li ma gis man bu ñu góorgóorlu defuñu nànk lu ko raw fuuf dina fi amaat. sëñ Adama bu ma bu ma la déggee danga nga ni jéye ji amoon euh, bu ñu góorluwul tuuti jéye ji amoon ju ko raw dina am ci réew mi. ju ko raw fuuf dina fi amaat. Euh, lan moo tax nga wax loolu. waaw li tax ma wax loolu gis naa si jéye joo xam ne askan wi bokk nañ ci muy citoyen muy askanu senegal di citoyen yi nga xam ne seen yoon nekku ci takku dere bokk nañ ci. président senegal bi nga xam ne moom moo fi nekk tey bokk na ci Ousmane Sonko bokk na ci. li tax ma waxee loolu waxewuma toog fii rek waxee nafsu damay waxee aqulaay taala li nga xam ne moom lañ gis te ñu bokk réew mi ñun ñëpp te liy waral loolu pexe bi si Ousmane Sonko la waaw pexe bi si Ousmane Sonko la te pexe boobu lu tax ñu koy def man sax dama ciy gis nit ku weex koo xam ne dafa leen a jaral nit ku weex koo xam ne dafa leen a jaral ñu yëgu ci alal ju bare jox ko xool lu mu def ba faagaagal kii di Ousmane Sonko gis naa loolu man. mais sëñ Adama li ngay wax nii dafa dafa dafa dafa garaaw te te dafa doon lu rëy ndax Ousmane Sonko ak fi mu toll nii ci réew mi Macky Sall fi mu toll nii ci réew mi. Euh, nga gis ci lu ni lu ni lu ni toll lu lu lu lu jéeju jéeju mel nii loolu loolu sëñ Adama yéeme na de. waaw yéeme na trop. ndax lii xew. dinañ dem ba doom ñoom dootuñ ko mën a tenir te buñ dinañ dem ba seen yaram dootu leen mën a may ñu jàkkaarloog askan wi te bu boobaa si ki nga xam ni moo yëf fitna bi moom mooy mujj yéen waat lépp muy président bi man maa la wax lii tey. ki nga xam ne moom mooy yee fitna bi lépp ci moom lay tourné waat ndax liy pexe bu mooy Ousmane Sonko bu mu dem élection 2024. sëñ bi li nga wax yéeme na. Euh, da dama dama bëgg ñu taxaw foofu. Euh, def def def def benn point bu ndaw benn jàngat ndax da di ñett te ñett yi ngeen di yëpp benn bu ci nekk bokk ci ak sa morom waaye ñett yëpp mën nañoo fekk ji. ndax bi njëkk dama la dégg nga ni Ousmane Sonko ci boppam dañu koy fexeel loo xamante ni nit ku weex moom lañu moom la ñu fay. moom lañu dina ci bokk. dina ci bokk. ñu danañu indi jéey joo xamante ni. dañuy jàkkaarloog askan wi. waaye fu ñuy mujjee. ci président bi la la waaw waaw maanaam loolu loolu nga wax noonu lan lan moo tax lan moo tax ak it ci ci fan nga ko teg. waaw fu ma ko teg mooy réew mi li fi lëndëm dafa bari te dara bëgguñ dara leer ci te ki nga xam ne moom moo taxaw seen kanam dafa am lu mu bëgg mooy lépp lu lëndëm mu leeral ko nit kat bu fekkee dangaa ngaa lépp lu lëndam nga leeral ko. te ñi nekk sa kanam bëgguñ dara leer ñoom duñ bëgg mbir mi leer luñ bëgg mooy mu gën a lëndëm rek. waaw mais man li ngay li ngay wax nii dama bëgg nga leeral ma ndax ci xam-xam nga ko teg. wala wala ci lan nga ko teg da nga teg ci ci pettaaw wala da teg ci euh, ci ay ci ay xool ci ay ndox wala wala ci lan lan dama bëgg nga leeral ci fan nga ko teg. xam nga fi ñu ko teg dama lay wax benn acte bu tuuti rek avant Macky Sall di falu élec avant Macky Sall di falu 2012 gis naa Macky Sall ñetti at avant muy falu 2012 te xañ na am na sama jigéen boo xam ne bu seetaanee vidéo bii nii dina xam ne ma koy wax ñetti at wax naa ko ne ko Macky Sall mooy doon président Sénégal ñetti at Macky Sall doo koo doon dafa daan toog di ma ree billaahi barke alquran dafa daan toog di ma ree ma yow daa daa saf xorom Macky Sall kenn du ko xam ma ne ko mooy nekk président Sénégal te Macky Sall keroog ba muy falu keroog ba muy falu ci réew mi dañ maa wan géej lañ ma wan mu nekk ci gaal biir gaal gi mu ngi mi ngi ci teg benn leket def ci gàllaaj ba mu fees def ci benn séq tiir xamuñu ñu xam ne seq ak tiiram déet teg ci benn seq ak tiir teer ba teeree ma gis Ablaye Wade def yaramu neen ma gis mu wàcc ba mu wàccee.